lan lan loo leen bëgg da ngeen a bëgg ma woyal. woy di woy woy woy mbëggeel parce que xam naa moom gars yi topp si ginnaaw. mais man li ma bëggoon mu woy ko mooy mu woyal borom kër yi ndax ku ne xam na tey bisub tabaski bi borom kër yi ci bëri sonn nañ ñi lu ne def nañ ko rayante pour am xar. suñu papa yi waaw suñu papa yi waaw foog nga woyal ñu leen. ci bisub tabaski bi tey. ñu delloo leen jukkal tey. ba tabaski jotee yaay ba ñu rendi xar yi mën nga ko woyaat. nan lan te ñu jëloon ñu jàppal la gaam Ousmane nañ ko téel gaam man keñ maa ngi déglu ba ñu rendi xar yaa ba ñëpp ñaanalante ah, keroog sa bis ba ku la tooñoon nan ko baal waaw waaw allah yi la la jox ma sama ndewalal lay la la la jox ma sama ndewalal ndeysaan wala tamit ma improviser leen waat. ñëwoon ñëwoon ñëwoon moo dàq tabaski bi looloo dàq tabaski bi nii fii ba trois jours yi jeex. ñëpp di dégg bibis ak tabaski bi ñu koy dégg te boo paree nga wéy ñaaxarañ loo mu jigéen. waaw ñaaxarañ loo sonn na sonn la sonn na ci yow trop. <laughs> léegi wóyuñu tabaski bi. tabaski bi. waaye lu la saf ñun ñëw rek la ñuy dégg. bàyyi ma woo baal ma àq baal naa la. àq voilà jàkkaaroo caméra yi dem. baal ma àq yi. bisu tabaski la ñu nekk. Oh. sama bàyyi booyi. lii dafa daw yaram. sonn nga jënd xar bi. sonn nga. xottil xale yi sonu nga jox yaay mu préparé oh sama baay booy indi nañu xar bi nañu ak ñanalante nañu fekke dewen dewen naati fekke dewen dewen naati fekke dewen dewen naati fekke dewen dewen dewen dewen non lii mais barke alxuraan lii dafa non lii mi ngi tuur yow tuur la bu yàgg non cest à man li ma gën a neex ci moom mooy dafa mel ni moom nu mu koy waxee improviser lay gën a mën que sax koy woyloo ko dara loolu dafa jafe c'est-à-dire loolu dafa yombul si artiste loolu dafa yombul ci artiste mm-hmm. moo tax yàlla na la yàlla defal jàmm mais nga gën a góorgóorlu dégg nga li fi nga teg sa tànk sànq nee nga teggee koo ko bul teggi bu ko teggi mais jàng bi da nga ci gën a nekk conseil bu ma la jox la. cinquième laa doon def mais déwén moom xam naa ne passé naa quatrième laa def xam la. ma man musuma redoublé nag barki yàlla. ak ah, pourquoi nga sonn nga si doublé pourquoi. xalaat mu toog ñu jox ko exercice mu toog di wéy moom mi. du bis laa def xoolal. dañoo joxe foo yu mat bi a pare angale bi nar a ñëw ñëpp di xaar ñii di stressé ma foogoon dinaa stressé ma toog laa mhm. di bind waaye di bind waaw maanaam yow devoir bu su ma stressé woo su ma baax day baax mhm. yàlla yàlla yàlla may na daa bëgg nga que élèves toog bu ñu toll si ay examen wala ay composition dañuy stressé wu dañuy tiit am ñoo xam ne dañuy bëgg bàyyi jàng léegi boo doon boo doon wéyal benn wéy boo xam ne bu ñu stressé nga ne carrément que bu leen stressé devoir bi dina yomb waaw am ah, na benn booy sax bu ne moom bu naree yomb bu na bu naree jafe day day bàyyi jàng. mooy ñiy def bac ak ñiy def. voilà ñiy def bac wéyal leen pour ñoom bu ñuy toog def bac sa xel bu nee sa wéy bi ñu gën a am courage. ñuy examen daal voilà ñu examen. bu leen jéego raasi. dëgg la mm. ca bu leen xaati. bu mu métti ba ngeen caayi. ndeysaan. jàng baax naay. mais examen sens la. Mm-hmm. intelligence la. wante sens la. Mm-hmm. bul def amoo daa di bàyyi bul def amoo daa di xaddi bul def amoo di jooyi yàlla mooy dogal mhm. yàlla mooy dogal buur bee dogal su ne am nga dangay am ah, su ne doo am doo am jullit ñan yàlla mu may la lu gën ci yow. gis nga nit am ba gaañu. ay gis nga nit am bi fi mu gaañu. loo ñaan ñaan na la. wallaahi dama ko wax lii xaj. bi bis woyee woyu xale de xaw ma na xam ngeen loolu. bis nag gaa yaxadee foo. xale de jur foowul. woyu xale. de. station bu am si moom bëriwul artistes yu nga xam am na si moom tey jii man des damay toog artiste mais sañ ma la wax ne la ma nii. Mhm, duñ ko mën waaw da ngay da ngay ko mën duñ ko mën. uus yow mënoo. ah uus wéyal ma caaya. bàkk yow fi ne ku la bettoon ci bàkk doo ko def. bàkkal man du ko mën. xaaral moo wéyal ko. wéyal ko. ma bëgg a way. <laughs> moom nag chaque jour mu woy la fii. bi waaw moom chaque jour moom toppatoo la. man bibis mi may woyal. <laughs> mooy doomi Malika. dend ak géej gi la mer <laughs> bu ma fàttali sumay démb. waaw léegi damaa bëgg yéen ñaar da Ousmane. ñu may ñu diyoo ñoom ñaar. Euh, loolu mën naa ne. waaw léegi may leen ñu yéen ñaar diyoo. waaw woy ko loolu waaw woy ko mu ñëw mu ñëw mu ñëw. acca aywa Ousmane jëlal. c'est parti Ousmane yaay dem. baby et moi. waaye bibis mu yàq waaye bibis yaa ngi yàq lu neex bul yàq waaye. moi aussi je t'aime. mun naa commencer waat. mon amour. je t'aime. baby moi aussi je t'aime. quand je te vois. Yes, mon corps fait <laughs> bis Ndiaye. tu mon cœur. baby je t'aime je t'aime I love bul daar sama kaw. Ousmane jooy nga jooy nga Ousmane jooy nga bis la dàq booy wala nga jàpp la alors. non ma dee. daa lii attanoo ko. Lewis li nga ko yéen attanu ko waaye Lewis wàññil wàññil lim la teg attanoo ko de. macha lu eh, ñu may si wax su mu toll teel mais nag ñun <laughs> kii Ousmane la. Mhm. kii Feuz man Momadou bu la wax Momadou dégg nga. waaw dama bëgg nga woy ni tuuti rek. ku nekk nga koy woy nga woy Télé Sénégal parce que Télé Sénégal. chaque jour kii day toog fii di woy say woy. kii chaque jour fii day toog di woy moom moom mu bàyyi woy pour yow ñun bu ñu nee ba xam ne suñu ñu ngi def émission émission bi di jeex ñu teg woy boo xam ne yaa koy woy. ñu tij nga ñu tijjee ko Ousmane Feuz wala Fatou <laughs> wala Momadou Momadou. wakkili Sénégal lay woy man di woy naa leen bàkk naa leen ji naa leen kañ naa leen woy naa leen bàkk naa leen ji naa leen kañ naa leen oh, waaw waaw mu ma lay woo mu musuma lay woy duma tay ci di la woy duma tay ci di la bàkk kooku mooy doomu ndeyu Ousmane ndeysaan Fassine jigéen mu ñaawul bi yaa bëgg say góor biir yaa bëgg Ousmane. barke yonent bi nan ko Ousmane yàlla jàmm rek la lay di faral. ndeysaan yow borom baax nga yàlla jàmm rek la lay di faral. ndeysaan. Eh. nan ko Fass yaa baax loolu yi. maa ngi nii. Fass yaa baax jongo bi bi bi nan ko yaa jongo mu pire. ndeysaan bi na wël bi na bëri na